déglu da leen ak jàmm léegi réewum Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne dañ fiy defar pétrole ndaxte yow colikaay bii di si quotidien moo ñuy xamal ne baril maanaam mbànn bu njëkk bi nga xam ne moom moo fees dell ki pétrole démb daal nañu ko fiy génnee colikaay bii di si quotidien kon di ñu xamal ne loolu xibaar gu neex la te bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi nga xam ne nag ñii di waa Woodside ñoom ñoo ko daal di fësal daal dinañ ci xamle daal ne fu mu nekk ni moom mën nañu sarxolle nañu kontaan ci pétrole pétrole boobu nga xam ne kon génnee nañu ko fii nga xam ne de moom mooy ci biir réew mi ba léegi ci biir communiqué boobu nga xam ne ñu ngi ci dëxëñ lépp lu jublu ci wàllu mbànn bu njëkk bi nga xam ne kon daal dinañu koy génnee ci utub li nga xam ne moom mooy pétrole fii ci même réew suñu natango yi ñu ngi ñuy xamal ne Woodside te mu daal di ciy lëkkaloo ak Petrosen ñoom daal dinañuy xamle ne loolu dina baax torop sax ci suñu wàllu koom-koom ndaxte ci benn baril boobu nga xam ne jot nañ ko fi génnee dina am ay téeméeri téeméeri yeneen mànn yoo xam ne kon dina génn at bu jot fi nga xam ne moom mooy ci biir réewum Sénégal kii di Thierno Ly nekk ki jiite euh, Petrosen di rafetlu li ni mel di xamle ne liggéey bu am solo nag la ñu jot a def ngir rek ñu am ci résultat bi aujolikay bi de Le Soleil ne kon léegi nañu jàpp ne réewum Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam ne kon dañ fiy defar lépp lu jublu ci wàllu pétrole wante laata loolu suñu natango yi ñu ngi ñëwaat ca mbir yee fa mu tàmbalee maanaam ci atum 2004 ba gi nga xam ne nag daal dinañuy gën a dëggal ne pétrole am na fi ci même réew njiitu réewum Sénégal di Bassirou Diomaye Faye moom ba mu daal di yégee xibaar googu na daal di xamle ne bépp koppar goo xam ne kon day jógee ci wàllu pétrole boobu réewum Sénégal autolikaay bii di réew mi quotidien sax di féddali kàddu yi nga xam ne njiitu réewum Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom moo ko daal di fësal Diagne di xamle ne leeral moom dinañu ko indi ci yorinu koppar googu nga xam ne moom mooy jóge ci wàllu pétrole kon nañu jàpp ak julikaay bi di yor yor bi ne léegi Sénégal mën nañu ko dugal euh, ci dëkk yi nga xam ne dañuy produire lépp lu jublu ci wàllu pétrole loolu kon di fi indi yaakaar gu rëy loolu sax la julikaay bi di le quotidien euh, daal di fësal ñoom sax di xamle ne pétrole googu nga xam ne kon tàmbali nañu ko di ko génnee fii ci mem réew loolu dina suqali bu baax a baax réewum Sénégal julikaay bii di bés bi le jour ne kay mun nañu wax ne fu mu nekk nii nag yuuxu gu njëkk ci wàllu yaakaar daal di nañu koy euh, jibal ginnaaw ba ñu daal di génnee baril bu njëkk ci wàllu pétrole fa li nga xam ne kon euh, moom mooy ca Sangomar julikaay bii di béss bi le jour di ñëwaat tamit euh, ci jafe-jafe yi nga xam ne projet pétrolier boobu jotoon na ko fee am ak tamit lan la ñuy xaar ci koppar yi nga xam ne dina fa daal di jógee ci biir julikaay bii di l'info suñu naataango yi ñu ngi ñuy xamal ne ci wàllu koppar jàpp ne at bu jot dinañu am ci lu tolloog ñetti téeméeri milliards ci suñu xoppar yoo xam ne daal mën nañ koy dugal fi ci même réew te loolu saa su nekk nag day gën di yokk lépp lu jublu ci suñu wàllu croissance ñu jukki ak coolikaay bii di direct news euh, ci kàddu yi nga xam ne joriñ gu njëkk gi di Ousmane Sonko nekk it ki jiite parti bii di fa fësaloon na ko jëmale ko nag ci ñii nga xam ne ñoom ñooy magistrat yeew coolikaay bii di direct news ma nga ñuy fàttali kàddu yooyu ndaxte ki nga xam ne de moom mooy Ousmane Sonko Sonko dafa daal di xamle ne dinañu bale bépp magistrat boo xam ne dañu lay guerre mu nekk nag ci biir cour suprême cour d'appel ba ca sax conseil constitutionnel foofu képp koo xam ne daal dugal nga sa loxo ci wàllu guerre bu la yeboo nga xam ne di nga fa jóge wanteew colikay bii di direct news la ko gën a jaaxal ca mbir ya moom mooy ne ba Ousmane Sonko fësale kàddu yooyu patta pataaral gu métti de la kuréel bii di UMS daal di nekkee UMS bi nga xam ne moom mooy union des magistrats du Sénégal ëmb mboolem magistrat yu nekk fii ci ci mim réew ñoom de boo leen laaloon lu tuuti sax ñu daal di génne ab communiqué di ko naqarlu tey ci nag kii di Ousmane Sonko fësal ay kàddu yu diisee nii ay kàddu yoo xam ne nag kàddu tuuma la teg ko ci seen ndodd ñoom ñu ne pat autolikaay bi di laas ne kon dafa mel nii ne ñii nga xam ne ñoom ñooy waa UMS kàddu yi nga xam ne kii di Ousmane Sonko sabaj na leen ko <laughs> dafa mel nii ne dalu leen de ndaxte daal ñoom ba léegi tontooguñ ci lan moo waral pat pataaral beeg tekk tekkaaral bi looloo coolikaay bii di laas di laajte ñu di ak joniñ gu njëkk gi di Ousmane Sonko ndax ci coolikaay bii di critique moom mooy euh, laajte ndax fi mu nekk ni nag moom day ubbiwaat affaire Prodac maanaam daal dafa fas yéene nag fayu jëmale ko ci ki nga xam ne moom mooy Mame Mbaye Niang mi nga xam ne moom moo ko tere mu daal di nekk candidat ci wàllu élection yi nga xam ne ñu ngi ko fi doon amal tabaski bi ay fan yu néew moom moo ci des coolikaay bii di tribune du ñu xamal ne tey jii yi la xar yi nag gën a cher ndaxte ñoom daal dina ñuy gis ne ku bëgg am xar de faw nga am koppar gu toll ci cent cinquante mille jëm kaw ngir war a mën a am xar bu baax rax ci dolli sax sénégalais yi dañoo gisu sax xaalis ba koy am te it fête bi nag mi ngi nekk ci waxtu yi nga xam ne daal dund gi lépp cher jeexale ko ko coolikaay bi di la mandat ma ngay ñëwaat ci xibaar bu ci xibaar bu tiis bii di génnub àddina Mansour Dieng mi nga xam ne kon ràññee nañu ko ci ëttub tasup xibaar moom moomu di Mansour Dieng colikaay bi dala la mandat di ñu xamal ne moom moo fi taxawaloon Icône magasin mu nekk koo xam ne ku xarañ la ci li mu doon def moom ginnaaw feebar bu yàgg goo xam ne nag moom moo ko tëral mujjee na génn àddina groupe Sud Communication di jébbal njaalam njabootam képp ku ko mës a xam ak tamit képp ku ko mës a sopp lii moo nekkoon mbokk déglukat yi li gën a fës ci biir cuurikaay yi